li muy tagg xarim lu bari la nee na li man talalun biraamata laa yariimu afaa wa xalaalahu xuqbun qadiimu li man talalun ku moom gent biraamata bu nekk ci raamata nga xam ne laa yariimu du dañ ba mukk gent bi sa yàgg na fi lool xafaa ràpp na nag waxalaa wéy na loo ñel ko xuqubun ay at yu bari wax nañ ne xuqub mooy juróom-ñetti fukki at wala ko ëpp jam moom di axqaab axqaab ah, kon at yu bari la xuqubun ay at qadimun yu yàgg ku moom gent bi ci raamatu dem ba ràpp am lu ëpp juróom-ñetti fukki at ma ngaa def it xeqabun jamoo xeqabatun xoqbu nag mufrad la jamoom di axqaab taamala laxas na ahluhu ñooñam minhu ci moom fa baatu ñu wëy wa fi arasaatihi nekk na ci ay ëttam minhum ci ñoom rusuumu ay jeexit mu ne gént bi de ay nitam dem nañ sori lool waaye boo ñëwee ci ëtt bi danga nga fa fekk ay jeexit maanaam seeni jeexit yi boo ñëwee ba ci ëtti gént boobu da koo fekk gaa yi dem nañ waaye seeni jeexit mu ngi fi des barab bi ràpp na lool waaye boo ñëwee fekk fi jeexit yi gaañ yàlla wax na danañ feeñ ñoom jeexit yooyu ka na dafa mel ni ñoom yadaa fataatin ñaari loxoy jànq lañ turajja'u def nañ dellantu fii maasimiha ci tikk njare ya al wusuumu njam ya njam mooy rëdd yi ñu def ci kaw tënk bi mu ne jeexit yooyu boo ñëwee dañ koy gis mu mel ni loxoob janq boo xam ne dañ daan njam loxo ya dégg nga ni njam yi di feeñee ci loxo ba même bu ràppee da nga gisee xaw a feeñ noonu la jeexit mel kon gaañe dem nañ ba fa jeexit Europe ràpp muy laaj nag ku moom gént bi maanaam dafa mel ni du sama gaa yi ñoo moom fi afa ràpp na min ali layla ci ñooñ layla bët nu saaqin bët fa ak sibatul ajalisi topp ak sibatul ajalis fal qasimu topp beñ bay borom ak garab bi nànjàmba garabu nànjàmba wala fal qadimu topp qadimu mu ne batnu saax de ñooñ lay laa fa ak si batul ajaali sit gaañu fa beñ bay sax yi garab gaañu nekkatuñ fa tutaaliuna danañu yër xayaalaatun ay janeer li salma ñeel salma كما يتطلع كم نمسنتو الغريم أجل بلجة الدين بربا boole ba nit saa su nekk yaa ngi nemmeeku bor ba di ko séentu mu fay la ko waaye ñun noonu lañuy génte géntee salma saa su nekk rek mu ngi ñuy dikkal taxaw ñun ba mel ni borom bor ni mu nemmeekoo borom saa su nekk ñu di ko gént di ko gis. la amru abika maa ngi gëñ sa dund bàyyi nga ñëw ci li ko tax a jóg maa xarib ibnu salma déet xarim doomu salma bi malxiin di kuñ yedd idan lu amaaw ndem woy soxor ya lii mu yeddeef nañ leen mu maa ngi gën ci sa dund bàyyi doomu salma nekkul ku ñu yedd même bu fekkee nit yu soxor ya ñu ngi leen yedd xarim moom duñ leen duñ ko yedd ndax soxorul bonut wala saaxil fuaadi nekkut ko aji jëmajab xol wala ayi lisaan yi nekkut ku lot ak làmmañ ida tashaajaratil ndem xul ndem xuloona alxusuumu way xulooya wala ida tashaajara ndem wuteena alxusuumu way xulooya mu ne xarim doomu salma nekkut koo xam ne xelam dafa dem nekkut ku gàtt xel nekkut ku fasu làmmañ ci jamono bi nga xam ne xulookat yi ñu ngay wutee di xuloo su jafe-jafe amee moom mën naa waxal boppam ba fajal boppam mbir mi woo moom xarim sun taw la wala xettali na lanaa ñeel ñu fi kulli aamin ci bépp at yaluusu dana weedu bii moom al mu xawwalu borom surga ya wala adimu a aji ñu wala mu nekk ku ami surga ak ku ñàkk yépp ci moom ngay wéetu maanaam ñi am ak ñi ñàkk ñëpp soxla lañ ko moo leen di dimbale mooy dimbale ñu am ñi mooy dimbale ñu ñàkk ñi kum bàyyi nga sonn waaw wada miinal la qawmuhu aw nitam harimun harim alayhi ci boppam dafa miinal nitam yi boppam wa min aadaat bokk na ci aadam alxuluqu jikko alkarimu jaaji tedd harim jikko ju tedd ci aadam la bokk kama kat kaana comme num comme num nekkee awadahum di leen miinal abuhu baayam ida azamathum ndem matt na leen yow man bis azumu beekoor su beekoor mattee nit ñi maanaam sonal leen ba mel ni lu leen di matt xarim yow miinal leen la baayam miinaloon gaayam kon moom dafa tabe baayam tabe baayam bu beekaar amoon beekoor amoon doon miinal gaay li mu bëgg a wax xarimit bu beekoor amee moo minal gaa yi lii moo lim leen minal kabiratu mahramin aji rëyi bor an yaxmiluha ñi gàddu ko tuhimmu dana yitteel an naasa nit ñi aw amrun wala mbir azimun bi aji mag lum leen minal mooy bor bu rëy boo xam ne gaa yi mu mënuñ koo gàddu ba di ko fay mu yitteel leen lool buñ ko amee rek xarim ñëw gàddu ko fayal leen ko lépp lu ñu war a fay lu rëy ba àttanuñ ko xarim ñëwee fajal nañ ko wala mbir mu màgg bu ñëwee ba ñëpp jaaxle xarim bu ñëwee fajal ko gaaña leen ju ngir mu mucc min malaamatiha ci yeddaangeem wa kaanu nekkoon nañ isa shahidu buñ teewee alazaima wooy màgg ya lam yu lii mu duñ def luñ leen yedde xarim lu rëy saa yu ñëwee rek mu fajal gaa yi gàcc ga ndax xam na ne bu ñu yeddee ay nitam moom lañ yedd moo tax mu bëgg mucc ci yeddaanga googu fajal gaa yi gàcc ga te moom ak baayam suñ teewoon mbir mu mag duñ def mukk luñ leen yedde fuñ teew nit ñu sikki kazalika nag noonu la xiimuhum seen jikko wala xiimuhum seen bindare wali kulli qawmin ñeel na bépp nit ida massatuhum ndem laal na leen ad darraau lor wa xiimun ay jikko mu ne lii mooy seen bindare nii la leen yàlla nit ku nekk nag bu jafe-jafe amee dana feeñal jikko bu naqadee ci lay jikko yi di feeñ bu mettee ci lay jikko yi di feeñ waaye ñoom seen jikko mooy dimbale nit ñi même bu jafe-jafe amee wayn suddat nem fatt nañ bii ci moom la hawaatu saxrin ay yoonu njàqare yu saaru danañ junj ilayhi jëm ci moom nga xam ne jaanibu ay og wàllam sa xiimun aji feebar la maxuufun luñ ragal la ba suhu jafe-jafeem yëkk la aw ko dana la wëttu minu ci moom atiqun aji gore laa alafun nekkul ku gàtt xel dégg nga wala sa umu nekkul yokkutaakoon maa bu fekkee yoonu njàqare dafa ubbeeku ñëpp di ko joxañ tiit lool mu nekk yoon wu raglu woo xam ne yaakaar nañ ne musiba dana ci génne ay ay feebar nekk fa ki musiba maanaam la bëgg a wax ci xarim moomu lañ koy fattee ndax moo lay wëttu ci yoon woowu garde la ba ba nga mujj ci njàqare gi maanaam laxawaatu fii jamoo laxaatun mooy taq fa ñam wi di jaar ci purax ka mooy laxaat waaye bu ñuy wax suddat bii laxawaatu saxrin maanaam yoonu musiba yi ci moom lañ ko fatte kon bu yoonu musiba ubbeekoo ñëpp di ko joxañ ñëpp jaaxle ñu ragal lool ci xarim moomu ci lañ leen ci la leen yàlla di wëttoo xarim na nekkul ko gore nekkul ku gàtt xel nekkul ku gaaw a tayal wala muy yokkat lawu ñeel na ko fi zaahibi na ca dem ña arumu sidqin cosaanab dëggu wa kaana nekk na li kulli di xasabin ñeel bépp borom ak askan arumu cosaan maanaam cosaanam mooy dëggu loolu la donn ci maamam yi fi jóge mooy ko am askan ku nekk rek am cosaan maanaam ko am teraanga gu nekk rek am cosaan loo ko jëlee xasab fi mën nga wa teraanga wakaana nekk na li kulli di xas bi ñeel bépp borom ak teraanga al wu mu cosaan ñu tedd ñëpp dafa am fu ñu jëlee seen teraanga ga waaye moom teraanga mu ngi ko jëlee ci magam yi jiitu baayam yi jiitu kon loolu la taggee xarit mu ne waqaala wax na ay ba tey ne alaa yëgal abliq jotalal la day ka fa yow bani tamimin banu tamim waqad yaatika amaana mu andil la bil xayri ci yiw azzanuunu aji ñaaw njorti ja dafa yëg ne banu tamim dañ ko bëgg a song mu ne jottalil ma lii banu tamim te buñ ko weddi dire kuñ ku ku ku suufee koo xam ne nit ñi daawuñ ko wóolu daawuñ ko wóolu hmm, moo la xibaar bi nañ ko gëm ndax léegi-léegi nit ku fenkat wax dëgg maanaam waqad yaatika léeg-léeg mu andi la xayri ci yiw af zanu njortuwaakoon ba mooy koo xam ne wóoluwuñ ko xibaar yi muy joxe du wóor day njort rek kooku léegi moo wax la dëgg kon lu lu muy jottali banu tamim bi anna buyuutanaa ne suñ kër yi bi mahalli xajirin mu ci barabu xajir bi kulli xaraaratin si bépp saxwaay boo xam ne nakuun dinañ nekk minaa ci moom waxal waa banu tamim ne ñun ñu ngi ci xajir fuñ mën a saxit kaaraange ci la nekk wax na ko ñi ñu bëgg a song noonu tey ñoo ñoo bañ song ñun ñu ci barabu aaru takunu dana nekk addaaru kër min naa si ñun ilaa xalaxaa ba xalaxaa ilaa ak naa duuma te ba ci wàlli duuma fal xajuun yi topp xajuun lii nag lu ñaaw la ci way ndax way da jeexe la dàmm la jeexee moom mu jeexale bi kasal mu ne ñun ñoo dëkkee gox bi yëpp ñoo dëkk ba xalaxaa ñoo dëkk ba wàlli duumatu ñoo dëkk ba xajuun kër yu am kaaraange lañ yore ne ko bu ñu jéem a song waxal loolu waa banu tamim bi awdiyatin ñu ngi ci xuur woo xam ne asaafiluhunna seen suuf ya raw dun toolu dër la wa alaaha la ci gën a kawe xusuunun ay tatalañ isa xif naa nem ragal lañ ñu ngi ci xuur woo xam ne suuf gi ay toolu dër yu naat la waaye kaw ga ay doj yu am sécurité la ba mel ni ay tata buñ buñ jaaxle fa la ñuy dugg moo tax kenn moo lu ñu dara naxullu danañ wàcci bi saxlihaa ci suufam ca isa fasi anaa buñ tiitee jaraa daw na min hun ci ñoom dégg nga wala boog jaraa daw na na ci ñoom bil aslaa yi ca barabu aslaa am ñu def bil asaali mooy ca ya aslaa moom barab la ay barab ci suufu banu sulaym mu ne xur woowu la ñuy wàcc ci suufam di ci dox Faïsa Fariana buñ tiitee jëlaat daw na min hun na tukkee ci ñoom xamuñu ay fas yu yemamaay bil aslaa yi ca bu ñuy wax asla waaye buñ jaaxlee rek war fas yu xem yu baax dal di jóge foofu. wa kullu tuwaalatin ak fas yu ak bépp fas yu aji gudd lañuy ñuy war waa qab ak fas yu aji xoos biir naxdin fas yu aji rëy maraakiluha ay sojuwaayam. juunun fas yu aju ñuul mi ne tàndaay mu ngi bokk ci fas yu eh, jàppkat ya muy fas yu tat jàpp mi ne tàndaay mu ngi bokk ci jàppkat ya muy fas yu tat jàpp buñ jaaxlee war fas wu gudd wu woo xam ne sojukaayam yi dafa rëy maanaam yow mi war fas yi fi ngay dóor sa tànk pour mu daw fu rëy la mooy ca leggee fas wu ñuul kukk waaye mën a jàpp suñ jaaxle loolu la ñuy wax kon ñun manqué wuñ dara am nañ barab yu am sécurité am fas yu baax tu dammaru danañ ko préparé bil asaili ca ngoon ya jamu asil kulli yawmin bépp bis tu sannu danañ sotti ala sanabikiha ala sanabikiha ci ay wexem alquruunu tawya maanaam ñaqee la ci nam fas la boo xam ne bu ngoon jotee dañ koy préparé pour takk ko dafay daw ba ñaq yi sotteeku ci tànk ñaq yooyu noonu ay taw yu yu lënkaloo taw bu xam day sotti ki sotti rek loo may xuroon wakaana nekkoon tastakii di tawat al adgaana soxoree min ha ci moom luy tawat al lajuunu fas wi aji diis al xabbu fas wi aji yéex <laughs> dégg wal laxiju dégg nga ak fas yu aji xat alxarun ka aji bañ dégg maanaam dafa bëgg wax ne bu ñuy fas yi ñu yore fas yu baax la waaye nag mool yu ndaw ya lay wax ni buñ leen di tàggat ñu leen fekkee fa ñu sàmmee pour ñu tàggat leen dañuy gis ni fas yi dañuy jëfe lool waaw parce que dañuy jëfar lool mel ni gars yi dañ leen soxore dañ leen bañ ba nar leen xëy ci caawa sa di leen wulli ji di leen tàggat moo tax mu ne fas yu yéex yu diis yooyu yu yéex yi yu xat yi yuy bañ yi dañuy tawat njàq soxor gi maanaam gars yi bu ñu leen fekkee ñuy sàmm bari na ñoo ci nekk ñu bëgg leen a xeewi nag pour tàggal leen da nga gis fas noonu la mel dañuy bañ kon ay mool yu baax lañ yore yoo xam ne boo koy tàggat dafay bañ yooyu lañ tàggat ba mu baax ko war nag wa xarajaha tàggat na mool yooyu sawaariqu kulli yawmin way xetliku bépp bis falaqad jaala def nañ araikaha araikoha wala boog falaqad jaala def na wala boog fa laqad jaalat commencé na araikuha jikkoom ju bon ja tarinu di nooy mooy mool yooyu lu leen tàggat mooy saa su nekk rek nit ñaa ngi xetliku ñëw di tàggat mool pour war leen dem saa su nekk rek nit ñi dañuy soxla ku leen li mool yooyu la ñu war dem loola waral ñu mujj tàggatu nag la dëgëroon ci ñoom nooy araika jamu arikatun mooy jikk ju dëgër yi ñu yoroon mujj nooy noonu lañ tàggatee fas bi saa su nekk rek war leen dem saa su nekk ñu war leen dem ci lañ demee ba miin war uh, ku leen war wahazat ha lottuloo na ko kawaahiluha ay joogareem dégg nga ne fas yu demee ba nga xam dafa xoos joogare yi joogare yi day jug wa kallat tëcc na salabikuha ay weexam wa qaddaxatit xóot na al uyunu bët yi fas yi dañoo dem ba xoos ndax yàgg daw joogare yi jug tànk yi tëccu bët yi xóot ndax yàgg daw ida rufia nam yëkkati nañ asiyaatu yar bi lahaa ñeel ko tamattat mu tàllalu wa mu ngi bokk si sungunikoom waaye matiinu aji dëgër la wa dalika la min ulaalatiha mu ngi bokk si sungundik dawam fas woowu fas woo xam ne boo yëkkati yar bi rek mu tàllalu di daw daw yu dëgër nag di le bokkut ak li ma xam lépp mu laalatu mooy fas bi boo ko euh, dawlooyee mu joxe li mu mën yépp ba taxaw nga soññaat ko li muy joxewaat noonu la mooy ulaalatu mooy daw bi muy daw nag ulaalatu la sunga nit daw la waaye nag lu dëgër la dul tuuti wa marji ak delluwaayam idaa nax nu ba nga xamee ñun inqalab naa wëlbatiku nañ nasiful baqli mooy jébbat ak gàncaxu baq la wala bunu ak sooba alxaqiinu ba da bañ denc ca mbuus ka fas yu bu delloo dégg nga ah dañ ko yóbbu ci gàncaxa baqlu gu jebbi muy lekk ñu di ko jox soow muy naan loolu lay dundee kon nag yow banu tamim faqar yi saxal fii bilaa di ka séeréew wala boog fii bilaa dikki ci say réew inna qawman naka aw nit mata yadahu saa yuñ bayee bilaadahum seen réew yahunu ñu doyadi mu ne kon nag yéen banu tamim toog leen seen réew bis bu ngeen bàyyee seen réew pour song ñi kat da ngeen torox de ndax nit ku ba sa réew rek doyati moom la olof di wax ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom awin tajii wala nga jublu sinaanan sinaan xaytu am saa fu mu fay ne xëy sa naka taw mun tajawoon jublukaay la ma inun aji daw la maanaam sewnde la wuyu sotteeku rek ku ne mën na ci wala boo ngeen dem ñaan sinaan mu may leen bàyyi xarim fu sinaan jublu rek jublu leen foofu ngeen ñaan ko fekkee da nga bëgg ku leen yelwaan ku leen sarax ndax tawkat fu ñu sotteeku rek war nañ faa jublu te fu taw sotteeku it sewnde am fa sinaan nag moom taw la kon jublukaay la sewnde la mata taati yi saa yoo ko dikkee taati da nga dikkal lujja baxrin xotxotu géej nga xam ne taxaasafu dana sànniwante fii xawaari bi ci ay jogareem safiinu gaaliya soo dikkalee sinaan dangay fekk ku tabe ba mel ni géej gu xóot googu gaal yi nekk ca kaw ndox ma duusi géej dégg nga di sànniwante noonu la si daan tabe si daan tabe gëm leen foofu mu may leen bu ngeen bëggee lu ngeen xam lawu ñeel na ko laqabun ak dàkkantal li baaxil xayri ñeel kuy sàkk yiw mu ne ku bëgg sàkk yiw rek boo ñëwee si sinaan fekk fa dàkkantal bu sedd xol mooy lañ naan la saxlun ku yomb jikku la wa kaydun pexe la yor matin bu dëgër yene tabluhu jamono ba nga koy nattu boo demee si sinaan da nga ko fekk muy koo xam ne ku nooy jikko la waaye xëy boo ko bëggee fexeel bëgg koo yàqal da fekk ci moom fexe mu dëgër moo xam ni kenn mënu koo daane loolu ngay fekk ci eh, sinaan su ko defee loolu loolu def tagg xayim ak baayam <coughs> dégg eh, ak yay mbokkam in uridu islam ma sultanatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته